フフフフフ。 Vision média man sista Eva man ngi fii tay ci Pikine Est ñu fekk fi un grand monsieur monsieur Issa Diop maire de la commune de Pikine Est yéen a ngi seen biir émission nak ma campagne monsieur Issakha nuyu naa la. maa ngi lay fay sista Eva. Euh, tey ma campagne daf la seet si woon ñu bëggoon xam kan mooy Issakha Diop. jërëjëf euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sénégalais yi seetaan yëpp euh, à travers télévision. Mhm. di kontaan ci invitation donc Issakha Diop benn sénégalais la nekk doomu Pikine. Mhm. yàlla dogal mu nekk maire commune Pikine Est depuis 2014 euh, ànd ak président Macky Sall di di liggéey donc pour jëmale Sénégal kanam donc en résumé daal xëy na loolu la ñu mën a def suñu présentation dégg nañ nag ay jaar-jaar. donc ci wàllu jàng ci wàllu liggéey mais ci wàllu association yi ak lépp li nga xamante ne dafa concerné askan wi mm-hmm. ñu yàgg ci góor góorgóorlu nekk président ay donc am ay association yu bëri ñu ñu jiite mm-hmm. yooyu yëpp ambition bi ci am rek mooy liggéeyal suñu gox. waaw politique bi nag mun naa xam ne yàgguñ ci loolu yàlla dafa dogal mm-hmm. mosuñu def politique avant président de la république bi taxawal parti mm-hmm. bi nga xamante ne ni ñu ngi koy xeex assemblée nationale ñu bokkoon ci sénégalais yi nga xamante ne gisoon nañ ne dañ ko tooñ mm-hmm. bëgg ko néewal doole comme ni ñu ko xamee sénégalais suñu xool sot ñu jóg ko yàlla dogal bi mu créé parti am ba ñu dawal tuuti ci dañu jël engagement bi parce que mosuñu woon milité ci parti fee na xalaatuñu woon sax ne dinañ nekk

pourquoi nga choisir nekk politicien sans autant que nga dem choisir beneen métier. waaw non man ñun nag am nañu métier. Hmm. yàlla dogal na ñun ay portuaire la ñu je suis cadre portuaire de profession. Hmm. donc titulaire euh, d'un ben, master en management portuaire et maritime. Hmm. donc bëri nañu yeneen formation mais loolu mooy. li nga xamante ne ci la ñu exercer yàlla dogal ñu avant ñuy dugg ci politique bi ñu liggéey nekk cadre ci port bi. Mhm. donc am euh, liggéey bu am solo bo xamni ñu ko fa doon def. Mhm. donc ci walu conciliation ci walu manutention. Mhm. ci walu transit. loolu mooy suñu métier. léegi nak ci li nga xamanteni mo ñu dugal ci engagement politique bi ndax comme politique moom ñu koy faral di waxee du métier ngay am métier ba paré donc daf dugg ci politique pour jëriñ sa réew. donc politique bi euh, mën nañu wax ne dañ ci dugg pour jëriñ suñu askan mais yàlla dogal na am nañu métier boo xam ne ba fi ñu waxee nii moom la ñuy exercer mm-hmm. donc wax dëgg yàlla di ci sant yàlla lépp lu ñu ci bëgg daal suñu borom mu ñu ci dimbale ñu di ci am sutura ok bëgg naa xam yan réalisation nga def pour commune Pikine mm-hmm. waaw réalisation yi moom bëri na mm-hmm. donc et ci ci domaine yëpp yàlla dogal na bi ñu ñëwee dañu fekkoon commune bu sonnoon lool ndax euh, vraiment jafe-jafe ñu fekk bëriwoon na ñu ñëwee yàlla dogal ñu tànn ci biir jafe-jafe yi nee na ñu tànn éducation ak santé def ko ay priorité mhm. ci loolu ci lañ ñëwee ñu jël suñu ñaari poste de santé yi fi nekkoon mhm. ñu nekkoon ci vraiment état bu xaw a doy war mhm. ci màggetaay ak ci sonnaay ñu defaraat ko beesalaat ko yàlla dogal aussi ICP yi mooy infirmier chef de poste yi seen logement ci biir poste santé bi la war a nekk mm-hmm. mu nekkoon ay logement yoo amoon ay jafe-jafe yoo xam ne ñi seen dal dafa daanu ñu am ñu doon difficulté si mm-hmm. la ñu liggéey ba réhabilité ko ba ñoom ñëpp ñu toll ci biir logement yooyu lañu dëkk benn maternité bi ñu fi am aussi yàlla dimbali ñu ñu liggéey ko ba mu ba mu ba mu gën a baax mhm. euh, ci wàllu santé toujours ñu génn dem bitim réew seeti suñuy partenaire mhm. xamal leen ne leen ah suñu commune de dëgg yàlla mosul am ambulance donc ñu waxtaan ak ñoom ñu ñu jàppale ñu mooy ambulance bi ngeen romb ci buntu poste de santé bi mhm. mu nekk première ambulance médicalisée bu commune Pikine Essa ki des musul am ambulance donc ci loolu ñu continuer aussi ak partenaires yooyu ñu jox ñu matériel médical bu toll ci valeur cinquante millions. Mhm. boo xamante ni am na lits d'hôpitaux am na échographie boo xam ne ñun Pikine ñoo ko moom suñu bopp te mhm. am na hôpital yoo xam sax boo demee doo ko fekk. Mhm. am électrocardiogramme ak yeneen yi nga xamante ne yooyu yëpp ci wàllu santé la. sans compter nag dañuy doter poste de santé yi ci wàllu médicament.

élève buy jàngee Pikine Est jox nañ la fourniture at mi ngi doon donc pour wane ne daal ñu ngi def ay jéego ci wàllu wàllu bëri donc fii nga xam ne moo jàkkaarloog mairie bi ñu tabax benn complexe boo xam ne nii dafa am bibliothèque euh, municipale am cyber communal boo xamante ne tey sibeer bi ndaw ñi mën a am fu ñu mën a demee di am possibilité connecté wu ak di def formation ci wàllu informatique euh, bibliothèque bi aussi ku ne xam ne ne lecture jafe na léegi nii ci ndaw ñëpp ñu di ko def di ko gën a nag yokk mooy dañuy amul ay bibliothèque donc bibliothèque boobu ñu teg ko pour ndaw ñi pour kenn ku ci nekk nga mën di gëstu di jàng si ak yeneen yeneen réalisation yoo xam ne domaine bu nekk daal boo ko jëlee mm-hmm. am na am na lu ñu ci def bëgg naa xam tamit euh, que pensez-vous de votre commune quoi lan nga xalaat ci commune Pikine Est waaw commune bi moom lañ ci xalaat mooy commune bu tuuti ci ci ci mais commune bu am solo ci qualité ressources humaines bi yàlla dafa dogal ñu nekk commune boo xam ne nii bëri na ñoo xam ne ñu ngi leen di tudd yàlla dogal na fi lañ dëkk ci ay borom xam-xam ci ci fa anam bu mhm. donc ñu nekk nag population boo xam ne population bu am valeur lañ population bëgg lu baax lañ mhm. population bu bu am yéene lañu donc yàlla dogal aussi vraiment depuis bi nga xamante ne ñu ngi nekk si bopp mairie bi ñuy jéem di jaamu seen soxla suñu kéemtalaay kattan population daal boo xam ne nii. bu am njëriñ la bu am xam-xam la bu bëgg lu baax la. Mhm. j'espère am nga ay projet pour Sénégal. Mhm. mais projet yooyu yëpp. Mhm. dañ koy dajale jox son excellence le président Macky Sall. moom mu doxal ko ci bopp réew mi. ok ok élection ah <laughs> xam nañ ko muy son excellence le président Macky Sall. nga xam ne tey li def si réew mi benn président bu jaar defu ko ci biir bu gàtt ko mu nekk nit koo xam ne nii. askan yëpp am ci moom yaakaar yaakaar boobu yàlla bu mu yàkkee ko ñun aussi askan bi ñoom obligation jàppale ko ndax bu yàlla may kilifa boo xamante ne tey lépp loo mu taxaw ci wax yàlla yow aussi da nga war a jóg gunge ko choisir ko mooy ay mooy ambition mais aussi compétence président Macky Sall nekk na nit koo xam ne yàlla may na ko xam-xam mais daf ko boole sérieux boole ko rigueur boole ko fulla ak fayda nekk nit ku bëgg réew mi président de dafa nekk koo xam ne maanaam amul beneen yitte bu dul Sénégal jëm ci kanam looloo tax ñu tànn ko def ko suñu liggéey. ok question am jërëjëf donc di bu baax di remercier waa El Vision remercier ñi nga xam yëpp ñoo ngi ci seetaan. Mhm. donc di wax ne kontaan nañu trop ci invitation bi donc di lancer waat appel population commune bu Pikine Est. Mhm. ci ñu leen ñu leen dénkaat suñu bopp. Mhm. fas yi liggéey jaamu seen soxla ba lépp lu ñu bëgg rek ñu taxaw ci. population département de nous aussi nous demande de nous ñu am travail président de la république ambition du Sénégal ñu nous 2019 le deuxième mandat dès le premier tour ak pourcentage bu am solo avec le monsieur le maire qui Diop fii ci Est ci seen émission ma campagne on vous rendez-vous prochainement.